ahousu billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum sunu mbokki eh, téléspectateurs yi jàkkaarloo nun ñu ngi siyaare bu baax sëriñ Mountakha Mbacké xalifa général des mourides di ko ñaanam yàgg fu loolu te ànd ak wér siyaare sëñ Amdi Moodu Mbenda mi boot Baay Faal yëpp tey te di fi Cheikh waa waaye la ñu siyaare askan wi yëpp ak yoonu murid ak taalibe yi eh, bokk yi ni ko waxoon xam ngeen ne tey ñoo ngi fii ci eh, plage yu Jàmmalaay di waajal Euh, julli gi nga xam ne soir kàlla daal dina amoon na le 21 septembre ñu koy euh, ñu ciy baaxantal di ko def nag ci njiital Serigne Mountakha Mbacké ak ndigalam di siyaare bu baax soxna Sodou Xuma mi nga xam tuwaat kàlla mooy jëwriñ ki yàlla teg ko ci boppu njaboot gi waaye ñu ngi siyaare bu baax El Hadj yu fay mi nga xam ni mooy représentant xalifa général des Mourides ci Ndakaaru lu ko war noonu nañ siyaare sëñ Youssou Diop mi nga xam ne mooy jëwriñ Hizbut Tarqiyyah ndax ñoom. la Serigne Touba wax ne na nañu gunge Ajor Sodou ma ci liggéey bi ak mbooleem daayira yi nekk fédération Dakar yëpp ak yéen ci biir Sénégal euh, ni ñu ko waxee woon rek xam ngeen ni ñu ngi ci dernier réglage te mois de septembre dafa am sensibilité ci yoonu Mouride ndax Serigne Touba xam ngeen ni le 5 septembre la ñu def euh, conseil privé ca Saint-Louis bis nag tey le 19 la wàccoon Ndakaaru am fi ñaari guddi dégg ngeen kàddu yu métti yéen a waxoon Euh, le 21 mu embarqué dem ci géej gi 21 bi nag la ñuy waajal waaye tey xam ngeen ne bu subaa incha allah mooy bis bi nga xam ne mooy teeru bisu 21 bi muy bisu moom Cheikh Ibrahima Fall euh, maa ngi bokkoon den nag sama invité incha allah. Euh, waxtaan wi sax du yàgg waaye Serigne Cheikh Mboup mi nga xam war tubaarkàlla euh, ku ñëpp xam ci liggéey Serigne Touba à travers de Sénégal ak bitim réew yëpp nga xam ne fu ne def na fa conférence ci adduna bi ci mbiru Cheikh Amadou euh, dama koy bàyyi bu nuyoo ba noppi. tey nag boo ko seetee Serigne Cheikh ñu ngi ci dernier réglage gis nga tubaarkàlla tout est à l'œuvre bâche yi pare na xam naa ni il reste une réunion pour tey rek incha allah régler invitation yi régler. Euh, maanaam batch yi pour ñu xam bu ëllëgee ak gannaaw ëllëg euh, kenn ko ne fa nga am accès dans les tribunes nga man faa dugg loolu c'est un problème d'organisation waaye boo ko seetee euh, wax naa ko mois de septembre dara ji nga xam ni si am na ko ci yoonu murit mois de septembre le conseil privé mois de septembre le sëñ Tuubaa embarqué dem ñëw ndakaaru dem ci géej gi mu ne événement boo xam ni vraiment nga am na ci rappel historique rek. ñu ngi jëm ci le 21 septembre. bi mu duggee woon fii. Euh, ci le paquebot ville de Pernambouc euh, di dem ci liggéey bu rëy boobu nga xam ni euh, nee na jihaadiyan maadi fawqa man mada mada min al jihaadi rabbiyal alima sama borom moo seede ni man sama sama jihaar moo gën a kawe te nee na yàlla moo seede loolu moom nag nee na seede bu dee bu dee benn yàlla doy na ci nee na sama borom moo seede ni man sama jihaar moo gën a kawe keneen ku mu mën a doon jiaadeen maadi ya fawqa ma mada mada minal jiaati rabbiyal alima ndax jaaram dafa singulier bi muy dem ci géej gi le 21 septembre 1895 fii la dugge ci waaxu musaasiri foofu mooy voie des messageries foofu la tege tànkam ci kaw bato bi waaye daf ne wala xaybatu huwa boobu kullu xayru kuntu uriduhu gis nga tey jii la fanaan si woon ndakaaru tey jii la wax ne bu xelam demee ci ndakaaru rek mu bëgg a tubaab yi kon xam nga li mu daj fii ñaari fan yi mu def fii ñaari fan yu yu mémorial la yu nit ñi man di yu mu dul fàtt mukk nee na isa sakartu salikal ma biita wa salikal amira wa sabota taraj ila jiati fi larma yi gis nga dafa bëggoon a jël ay arm foofu pour xeex nee na ndax ndax ñaari guddi yu tar yi mu yi mu def fii waaye nag tukkeem bi ci géej gi day tukki boobu dootoo dégg wu jëm lu ne manees na koo màggal ñu màggal ko ci sa wet waaye dootoo dégg nag tukki bii tukki bi am wujju déedéet ndax moom rek nag moo dem ci géej gi sëñ sàmbay nee na inna ardullahi waasiatun nee na suufu si yàlla si fu yaatu ku ne mën naa jaamu yàlla fu la neex waaye inna bahrullahi tam waasiatun waaye nee na nag bu dee bahrullahi nag nee na sëriñ Tuubaa rek la ñuy seedeel ne moom képp mooy ki nga xam ne moo julli ci kaw géej gi ndax moom nag man xanii fi l bahri rahman li qurbati wa sadani min al ilahi turbati que celui qui me jette très loin dans l'océan en vue de me perdre sache que Dieu m'a subjugué tout l'univers Xaadimu Rasuul nee na Dieu à dompter l'atmosphère, l'osmos, l'atmosphère, l'océan, le cosmos amoon mon endroit moom dafa éliminer la règle de la pesanteur taxaw ci kaw ndox mi moom xaadimu rasul moom nag avant muy def loolu il faut nga xam ndax zimaamil war a astri la wax la da laayi fii di wa maa rumtuhu min malikin xaada la nii waaw ku wax loolu nag dama lay wax ne la bu la dara gaare ci ci ruu yi nit ñi il faut ñu laaj la fa ruug nit kooku nekkoon ci sa loxo kon moom bu ko géej gi gaaroon ñu laaj ko furu géej furu géej gi ne ci sa loxo bu ko gaynde gi ñu tëjoon ak moom fii ci jardin d'essai de Saint-Louis gaaroon ñu laaj ko furu gaynde gi nekk ci loxoom bu ko tubaab bi sànkoon ba delsiwul fokk ñu laaj ko furu tubaab bi nekk ci loxoom moom il a les il a les en mais li mu wax bu dul woon ak loolu rajo yi bari yii ak télévision yu bari yi foog nga dégg ñu posé zimaamil wara asri la dalay fi yeddi pour dingat ko waaye amuñu fu nu aw ndax sëriñ bi lu mu wax rek daf koy signé bokkul ak kenn gaynde gaa ngi nii il a été enfermé pendant plusieurs semaines avec un lion affamé au jardin d'Est de Saint-Louis moo yor gi géej gi daf ko domte moo man tubaab yi ñoom la àndal dem dikk mosoo ko dégg dama la wax ne sëñ sëñ Ibra Cheikh Ahmadou Bamba rek Ablaye Wade bi mu bëggee tuddee bi mu bëggee tuddee eh, eh, eh, transport urbain bi sëñ Touba te jaarul ci tur wi daf koo jox fonction bi dem dikk <laughs> waaw dem dikk moo tax Eh, sëñ Ibra comme yëf yi vingt minutes rek la damay bàyyi nga delloo nga delloo ko. tubarkàlla euh, Serigne Cheikh Mboup euh, euh, maa ngi lay sargalaat bu baax ndax xam nga le 21 septembre c'est une période période historique ndax dégg nga c'est la victoire de l'islam c'est la victoire du mouridisme waaye c'est la victoire de tout un peuple ndax xalaman rahman fil safina bi ànd na xaanima zil madina loolu ca bato ba la amee woon waaye euh, tabarkàlla euh, di fàttali rek ni kon euh, tout est en place sur le plan organisation xam ngeen ni ñu yor kuréel yëpp réunion nañu le le dernière réunion maanaam hébergement Euh, communication maanaam sécurité loolu lépp xam ngeen ne def nañu CRD def nañu CLD loolu lépp mise en place ndax loolu rek mooy euh, baaxal organisation ba tey rek euh, sëñ Mamadou Ndiaye yow it sa kàddu ci événement bi nga xam ni tey moom la ñuy waajal muy gannaaw suba nga yor commission sponsoring ak maanaam. marketing tubarkal di ko am positif nekk nag euh, ci euh, société bi bu naan Senelec fii te ci nun waaye nag féete ci liggéeyal Serigne Touba di taalibe Mame Thierno Ibrahima Faty sëñ Mamadou Ndiaye daa jox kàddu gi. jërëjëf Baye Ibra sëñ bi mbuub jërëjëf ci ndollent gi yal yàlla sàmm xam-xam bi euh, Baye Ibra comme ni nga ko waxee rek kuréel gii moom gannaaw bi nu sëriñ bi dimbalee mu doon cërub Ndakaaru mu teg ko ci loxo yi soxna Sooda Xuma ci yaatalam ci la sàkku képp koo xam ne am nga yéene liggéeyal sëriñ bi te jote ko nga ñëw jàpp ci liggéey bi ci loole la ñu wooyee woon maak yeneen i bokki taalibe ba nu yegg si bi nu ñëwee mu yëkkati kuréel gii nga tudd sànq muy kuréelu sponsoring ak marketing féetale ma ko ñu ciy ñaan daje ceeg ndimbal ak ngërëmal sëriñ bi ñu seq ko ay bokki taalibe nag bu ma ci tuddee Adama Diop mii nga xam ne moom laa jàkkaarloo rek mu daal di doy te dina mën a yóbbaale ñëpp kuréel googu nag li nga xam ne mooy wàllam ci tool bi day waar woo xam ne amaana dun ne ñàkk na ci solo lool lool lool waaye it am na ci solo lool lool lool ndax liñ ci def ab takk moo di euh, kuréel la goo xam ne mooy wuti ji li nga xam ne mooy jëmmal bés bi ci koom ak la muy àndal kon ñun li nga xam ne moom la ñu sas ci yoon wi li ñu sas ci kuréel gi te ñu war di ko wuti saa su ne dañu ci sukkandiku di tàllal loxo bépp mbokk taalibe képp koo xam ne suñu borom am na lu mu la dénk muy kërug liggéeyukaay muy koo xam ne suñu borom mën na la gan danañu la seet si mbaa ñu bind la bataaxal ngir dimbali la dimbali suñu bopp ba saw ñaq mën a tàbbi ci liggéey bi te ñu ñaan daje ci dimbalal ngërëmal sëriñ bi loolee daal ci tënk mooy li nga xam ne moo ëmb kuréel gi di ñaan nag ngeen ñaanalaal ñu si te képp koo xam ne yaa ngi teewlu kàddu yi nga ñaanal ñu si ñu daje seen dimbalal suñu mooy projet sponsor ak comme euh, euh, ak marketing ci événement bu rëy bi ak euh, ana yi nga xam ne si tubarkalla ñooy ñëw waaw ndax comme ni nga ko waxee ba nga waxee projet rek ci lañ dëgmal at yi nga xam ne moom la ñu dëgmal projet yi nag mooy fexe ba bu ñu yàlla dimbalee événement bi bu yegseetee mu am taxawaay boo xam ne bokki taalibe bi yëpp ku ci bëgg barkeelu mbaa nga bëgg cee taxaw danañu jox bunt boo xam ne da nga ci mën a barkeelu kéem kàttan loolu daal mooy li nga xam ne foofu la ñu bëgg a taxawee li nga xam ne nag moo jëm ci marketing bi ak ñi ñu ko àndal mooy fexe ba fésal ko ba ndakaaru képp xam ne bu yegseetee ñu xam ne seen bés bopp ba yegsi na ba ñuy sant Serigne Touba yegsi Eh, jërëjëf eh, tubarkalla ñu ngi siyaar bu baax sunu mbokki eh, cameraman yi jàkkaarloog ñun tubarkalla di ñaan yàlla bàyyi fi sëñ Muntaxa mais di jox nag rendez-vous suba incha allah ñëpp. à partir de 16h ndax xam ngeen ni 16h pile ca la ñuy séenu délégation xef général de Baye Fall waaye di siyaaraat bu baax nag ajaratu soodu xuma ak mboolem kuréel yi ñu jiite euh, kuréelu julli gi yëpp muy soxna yi di le surtout le bureau nga xam tuwaat kàlla tout est fin près nga xam tuwaat kàlla nee naa leen euh, hébergement. communication sécurité lépp pare na kon ñu ngeen ñaan daal defal nu jàmm di siyaare bu baax nag sëriñ Youssou mi nga xam ne mooy sëriñ jëwriñ ci liggéey bi waaye mu jaar nag sëñ Lamine Diouf mi nga xam ne tubaarkàlla ci ndigalam rek la ak accéder ci waxtaan yi di ñaan yàlla defal nu jàmm incha allah bu subaa da ngeen amat plateau bu nii maag ñi ma toogal ca ngoon incha allah yàlla na yàlla defal nu dégg ak topp allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim jërë leen jëf